Euh, li ñu dajale tey ñu war ci sant yàlla war koo sant yàlla war lee war ci santale yàlla kenn ku ne ci ñun mooy dañoo séq réew mi at mu jot ci waxtu wii ñu dajee war a càmbar at mu di ñëw li ñu war a natt pour liggéeyal ci réew mi ah xanaa xam ngeen ne bu dee as gor du weddi boppam mënuma ñàkk d'accord ci orientation bi nga xam ne moom la président de la République joxoon tabb ministre des finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo tabb ministre de l'économie du plan et de la coopération mon cher frère Amadou Hott euh, tabb ministre Samba Sy te ñu nekk ak fii ni mu tabbee yeneen ministre nit nag lu mu ànd bokk ca taxawal ko yàlla def nañ ko def bu ne nañ ko waxtaane di ko jiitu su ñëwee ci pinc mi fii ñuy waxtaane daa war a wax àqulaay taalaam kon na ngeen jàpp ne euh, orientation bi ci conseil rural yi dañ ci ànd bu baax suñu yaakaar nag dëggu dëgg la nag gouvernement bii nga xam ne mooy tàmbali liggéey ci budget bii ñuy defar ah man dama cee gis sama bopp bu baax ci turu région Kaffrine man soxla may wax soxlaay Kaffrine ndax waa Kaffrine ñu ngi lay déglu waaye ministre du finance et du budget bi ñu yaakaar naa ne bu président Macky Sall faloo 2012 ba léegi nii lu mu mës a diggee ci région Kaffrine fekke na ko bàyyi na ko xel mënu ma nag ñàkk balaa may sori sargal fonctionnaire yi nga xam ne ci anam yu bëri te ñooy gunge gouvernement bi rawatina ministère bi nga xam ne nii moo ñu fi rajale tey nit nag su dul pro xam nga dañoo pro moo dul gërëm ñamu daaw su dul pro war na wax waaw góor bu jàmbaar amee fonctionnaire yi nga xam ne nii dafa kat réew mi alalu réew mi ak liggéeyu réew mi ñoo ko yore ba ministre yi mën di am waaw góoru président président mën di am jaaraama Sénégal fonctionnaire yooyu bëgg naa ñun ñëpp ñu tàccu leen gërëm leen dama ne ñun waa assemblée nationale ñoo war a sargal les fonctionnaires Sénégal waa ministère bi oui mais tous les ministères qui ont qui sont illustrés de manière admirable ci at mi ñu génn at mi ñu génn ak ñu defoon ci àdduna bi yëpp ñun li nga xam ne ñu dëkk dañu leen cee amul réew ñu ñu seqal réew yooyu noonu di diggaale ñoom di ñu wax ne li Sénégal taxawoo waa Sénégal ci mbas mii ci Covid bi nii seen réew defu ko kon nag jaaraama fonctionnaire Sénégal yi waaye woo góor askanu Sénégal askan bu amee aw njiitam fonk ko. di ko yéene lu baax di ko nangu di ko déggal dañ ko war a gërëm bu loolu weesoo ma wax leen tuuti rek pour jëm ci soxla boo xam ne mboolem région Kaffrine dafa nekk seen soxla waaye ñu seet ko ak ay kilifa yi Sénégal gën a am te ràññeeku ci Serigne Mouhamadou Mountakha yàlla fi yàgg te moo kilifa diine Sénégal yépp dafa def itteem cent quinze kilomètres yi nga xam ne mooy jëlee ko xel comme dëkkub Cheikh Saliou Mbacké jaar daaru mu nan ba nga xam ne mun Mountakha moo ko sanc jaar ngir gent ñëw ba jotee sayaan àgg dël bi jaar jànkeer romb këy ci biir Sorokoñ jaar Kaffrine soflante ak yoon bi gën a jógee koo Kaffrine jaar Maabo jëm Nioro yoon moom yoon bu mën a sukkali économie la waaye bu bu ñam ci yoon yoon rek ay at ci ginnaaw ñaari at nekk nañ fii xaalis boo xam daroon defaraat yoonu Kaffrine Mbàkke man ngi laaj yoon fuñ ci toll gannaaw loolu it lii nga xam ne mooy Promoville nañ ma xam ko dëgg 2012 ba nag ni Promoville ay dëkk yu ndaw ndawaan am nañ ci ay 9 du ay 6 20 kilomètres Kaffrine amul sax benn kilomètre loolu jaaduwul dañ ñëw fàtte mu cee bokkul ma ne man nag su ma bu ma ànd ak moom fa mu a waxtaan dinaa xam ne mooy li mu war bu loolu weesoo Kaffrine dafa am université suñu Saloum ma bëgg ñu bàyyi xel ne suñu sukkandiku ba ñëwoon ëllëg ak si biir ay yëngu-yëngu mën na fa am yoo xam ne nii du jaadu te bëgguñu ko. ñu bëgg ngeen bàyyi loo xel président bi ne li muy def neex na mu ànd nañ waaye ba dëgg yàlla. merci Kaffrine Bordeaux gën a dëgëral bu baax a baax ci mbir mi. jërë ngeen